pourtant yërëm la moo tax ma wax la ko de ndax boo ko utoon sa jàmm ak salaam dafay yoon ndax man bu nekkee suñu kër gii lu ma bëgg a def yëpp ma ko mën a def loo bëgg am doo ko mën a am loo yooyu foog nga partagé ko ndax macha allah dañoo sakkan nag yaa comprendre defal loolu xoolal def ci loo mën am ko rek yow. waaw maa yow yaa fi te yow yaa ne jur. vraiment ma sañoon bu ma ko gisul gis waa waaw papa doxe nga naaj de naaj bi tàng na. comme ñun suñu kattan mayeetu ko te mënatunoo def sport ah dañuy dox rek naaj bi moom xam naa ne kii na mais moo gën ci ñun waaw euh, moo leen di dimbali a dimbali mm-hmm. ñun bu ñu tëddee rek ngeen naan ne ci coono loolu de moom dëgg la nag waaw papa fu nga jógee nii nag. man de sa waay damaa demoon euh, seeti xale boobu nga xam bii moom laa jotoon a luyee sama kër gi la ma nekkoon. moom mm-hmm. sa waay comme daf maa wutaloon dafa defaroon beneen kër ma nekk te kër gi ma jëkkoon a nekk ma defar ko pour ko luyee léegi nag ma waxoon ak xale bi ma war a dem jëli caution mu waroon ma indil ko si mm-hmm. boobu ba léegi gisuma ko moom laa doon doon seeti ndax euh, fu mu ci tollu daal xam nga. looloo tax xam nga mu mu xaw mu génn sax ma ne xaaral naa jaar nii siyaare waale ñaan sëg yi hmm. mbokk yeeg yooyu daal waaw mais waaw frère Ba. maa ngi jàmm sant yaa ngi jàmm. alhamdulilah wàcc nga ah. waaw wàcc naa nice kay. yow yaa ngi jàmm. sant bi sant alhamdulilah. mais sànq paa bi ñëwoon na fi de. kan ci Paa Diop. waaw Paa Diop. ok jaar na fi de. waaw il paraît que sànq ni mu ñëwee ak kanam boobu dafa mel ne xaalisam loolu laa ci def. waaw mais xaalis. man la dernière fois laa demoon këram. ah pour remettre somme d' argent bi papa euh, doomam jooju ñu ma présenté woon. loolu moom lijjanti koog moom moom ko lijjanti moom. waaw ah, mais yow man daa mel ni dama laa xaw a gëj a gis ne yàgg sa waay yow la kër ga baa du dara. yow moom ak seen jabar yi ñu ba loolu bu leen féewale day yomb te nga jigéen ñi ñoom seen i mbir kenn mënu koo lijjanti. te gisatuma nangeen meloon ngeen mel ni gisatuma la déggatu baadu dara. ma diggante ak moom léegi la gën a dëgër ñu koy firndeel sax sànq rek la ñu lu ma ci jaaxal daal maa ngi waxtaan ak Mor. ah man de dëgg yàlla aussi suñu gisee sax dafa yombul ndax moom buy xëy fekk na man génn naa buy wàcc fekk na man tëdd naa vraiment suñu gisee taxatul mu demee noonu noonu noonu noonu. xëy nag mën na noo di gisee mais gëj na noo gëj na noo daal waxtaan léegi xam nga nu ñuy def bàyyi ma seere moto bi fii ñu wàcc waxtaan ok de toutes les façons man ko woo incha allah comme yor naa numéro am ak c'est bien mais gars yi ni ñu mujjee ak grève bi si baaw baaw affaire daal c'est autre chose ba léegi nag nangu nanguwuñu suñu proposition ba tey non toujours c'est chose mais loolu dina garaaw de mais année baa ngi dem te année bi ni muy gën di dem loolu day nekk pression suñu côté day métti lool si mais nu muy demee bu dee ñun lekk ñu ba suur professeur manque de professeur yow même pour pour nga fanaan sax laa la foog nga fanaan ak douze personnes. non non laa laa day métti aussi. métti na trop. là bon dañ lay dañ lay tibbal loo xam ne laalo la wax ci sax mënoo ci basé wu mënoo la téye sax ba quinze heures fi nga lekkee foofu foofu lay resee. ba pare ñu naan la jàngal saako bu amul dara aussi du mën a taxaw pour les professeurs nag waxaale wu ma ndax une deux ñu dagg seen bii dem dispenser des cours à l'extérieur te ñoom seen doom yi sax laala ba xoolee nekkuñu fi. waaw sama xool fii nga ma indi fii tey mooy fan. dangay ngay laaj yow tamit fii mooy xolu Thiès gis nga suuratul Yaasin nu mel ci alxuraan. fii noonu la mel ci ci diggu Thiès. mais fii ba pare dafa féex sax non vraiment yaa ngi may dundal. <laughs> yaa ko moom. <laughs> waaw kontaan ci yow. non fii féex na trop. papa Mor sonn na ci kër gi jabaram sonn na ci kër gi. bëgg na la ko wax nag waaye xamul nan la la koy waxee ndax lu mu ciy sóor a bari waaw loolu nga wax moom dëgg la ko ndax euh, olof Njaay dafa wax ni mag dina toog ci suuf gune yéeg ci kaw yéeg ci kaw di di séentu te du séen mag toog ci suuf di gis lu yéeg ci kaw dul gis ndaxte euh, sa waay ba mu defaree këram ba yàlla dogal mu sotti daf ma ni papa ma ne ko naam mun ma dama bëggoon ñu ñëpp ñu ànd tox ci kër gi ma ne ko loolu moom lu rafet la lu baax la mais man bu ma sañoon yow nga dem ak sa njaboot ndax xam naa ni espace boo dëkkee ma dëkk sañoon bu ngay demee dëkk la ca des ngeen luyoo ko dina xaj ci yow mu ne ma déedéet bu ma sañoon ñun ñëpp ñooy dem ndax maa dem di la fi bàyyi fu mën mënti nekk rek bu ma sañoon nga nekk ci sama wet ndax yaay sama ndëgër laay moor xol bee rafet mu ne ma nan dem ñu ànd dem loolu nag moo ko indi lii lépp lépp lépp lépp lépp looloo ko ko indi lii moo ko indi lii eh, waaye nag man moor moom wax dëgg yàlla dama koy ñaanal rek koy ñaanal parce que wax dëgg yàlla doom la gone la te dégg na sama ndigal ñun ñooy subir les conséquences dañuy dem nag ba année bi di waaye jeex si la ñuy door rek ba tourné naan dañuy sëkkuur bu ko defee examen yi tax gis nga moo frère t'as parfaitement raison di nga ñun suñu parents yi dañoo indi ci école yi ñu góor góorgóorlu ba am suñu diplôme nekk université di jàng mais condition yi ñuy daj bilaay ñun rek ñoo xam mais bu ñoo tax seen yaakaar moo waral ñun ñoo ngi jàng di xare ah fii nii da leen da leen leen tey jii nii am na ñoo xamante ne seen parent yi am na ñu moyen du ba pare di leen fayal privé ñuy jàng mais ñoom ils s'en Atou Magne yaa waaw des fois la moom. nouvelle yi am ci kër gi est-ce que dinañu waxtaan waxtaan nii ci problème kër gi mais du xóot yenn xóot yi quoi parce que xamal temps bi moo ko may te en plus sa parent dinaa la woowaat xat xam naa moo du ma ko déggal mooy loolu. lu tax doo ko wax mu yóbbu la ngeen def di woo yéen ñaar ngeen liggéey ilaab waaw ilaab fekkee loolu mënta nekk sax mu envoyé la ay conteneur nga dugg ci business bi tamit instant bi réew looloo ko téye de loolu kese moo la ciy génne bu ko defee boo leen liggéeyee nga jox ko moom nga jël sa part après mu yónneewaat. waaw loolu tamit xel la de. si nga mon cœur proposition bi ma jox nii dëgg la c'est bien su ma sañoon tamit euh, loolu dinaa ko def mais dafa am lu ma jaaxal trop Atoumane léegi lu muy waxtaanee man ak bu njëkk li ñu doon waxtaanee man ak moom dafa wute trop xaw ma nag lu mu demee noonu ak xaw ma lan moo tax rek Atoumane léegi changé quoi. ah bon ah jam leer na ma gis nga foofu daam ko fa jaar. Hmm. ah man xaw ma daam ko fa jaar xaw amul ko fa jaar de mais comme nee na ma day ñëw ci vacances yi su boobaa dinañ jàkkaarloo maag moom te dina xam ne jàkkaarloo moo gën jëw dina xam fan la wànnent mu jeex ay bëtam. leen daal laal la bëgg a xamal fulla moom na ko am. yaa ngi may lii yëgoo ko boo ko yëgoon xam naa di nga ko lijjanti. lii day commencé naa ëppi loxo bu ñu toggee ba jeg yi nekk ci koñ bi di wax naan doomam sëyiwul te bàyyiwul doomu jàmbur sëy moo may firndeel li may sa diggante moo dëgg yàlla sa doomu ndey la ndax mënoon ngaa bàyyi ba ma di ko dégg wala ma ma man sax ma jóg ñëw di la ko laaj mais jërëjëf bi nga amee xel toog ak man ci dal foo xam fi maag yow ak yàlla rek nga wax ma li xew ci kër gi quoi jërëjëf dëgg naa la bu baax na dëgg naa la bu baax a baax a baax a ma ñëw dem nag ndax fi nga nii dafa am ay yitte yu bëri yu ma war a dox xaar sax ma ñëw jox la njëgu guro waaw ah, sa waay yow lii moom bëri na di ah, papa lii yàgg moom lii xeeb naa ko lool lool sax jërëjëf jërëjëf jërëjëf lii moom wax dëgg yàlla man awma lu dul yéen Eh, lu ngeen ma def ñaan rek laa leen di defal bu soobee yàlla mais yàgg euh, Mortalla yéen a yem képp képp képp képp ci man bu ko nee nii damay bàyyi dem taaba taaba ji. non yow saa yi dafa metti yàlla baax na dafa. ñu ngi sama intellectuel kii kal om zoo daala yéen a daaj de da ngeen waxtaan looy rek mais bon xaaral dem jënd tabax fii maa ngi ñëw. yéen seen kii war ngeen wax ak moom de non kii li muy toog dafa bëri. imagine tey bu échec amee lu ñuy wax diw da doon taxawaalu diw jàngul moom day tambaambaalu lu ne ngay dégg. voilà mais na. lan la sax comme da ngay ñu lay. jël ak naan dama xaw a jàpp ak occupé ak genre yooyu amul neexal amul dara bu ñu kenn sonal te il est temps nag nekk suñu oolalaa oh dama bëgg nga ko studio ñu nekk fa man ak yow amul keneen ku ñuy toog te dafa jot sax nag ma toppatoo la dama ngi bëgg a defar ne mais yow yaa bàyyi sa loxo mu ëpp daal. yow studio nga may wax nii. waaw studio. xanaa yërëmoo ma gis nga situation yi ma nekk di ko dund nii nga bëgg ma wut studio lu sax mënalu ma la ko pourtant yërëm la moo tax ma wax la ko de ndax boo ma utoon sa jàmm ak salaam dafay yoon ndax man bu nekkee suñu kër bii lu ma bëgg a def yëpp du ma ko mën a def loo bëgg am doo ko mën a am loo yooyu foog nga partagé ko ndax macha allah dañoo sakkan nag yaa comprendre defal loolu xoolal def ci loo mën am ko rek yow. waaw léegi man fan a xam. Eh, loolu kat du question nag de yow foog ñu romb nañ foofu yow ak banque yow fii nii Sénégal nga ne de wala nga fàtte loolu gis fii lu assuré la ñuy laajte li nga xam ne xoolal dafa garanti kese loo bëgg nga am lu dof. kayitu kër sax ba ko joxee xoolal dañuy valider nga naan kayitu kër loolu ma bëgg nga yëngati sa yuur gii nga yëngal ko nga xam ne ma lay wax wax ju àgg dafa ko moom mais j'espère que paa bi si bëggul lan la paa bi di si bëti encore xaalis ko sion ba mais loolu bu ko yëgee fan la koy yëgee kan moo koy wax. j'espère juste que ni am nga plan plan B. loolu yëgagul si baal ba après rek ah na ma arranger trop sama boutique bi amatul benn bagage bagage fi nekk yëpp dañ koo commandé te tey seen borom bu ñëwee jël si ko boutique bi kon lay fii ci dara nga jàppale ma si nag. loolu moom amul benn problème bagage yi moom defar ni comme si ko jot nga ci nii nii dafa am yu ma commencé di livrer mais sa bos moom dinaa def tout ba teg ko ci oto yi. comme ça mu mën a agsi nga mën cee jot mais gain yow bu caay mi toll. ah tey moom teg naa ko de instant yii nii nii damaa teg fourneau beeg yooyu yëpp mais bu boutique bi xam nga comme que tey la vendredi ñoom dañuy yéex a ubbi dañuy bàyyi julli ba pare doo jël seen moo tax instant yii nii du ah, amaguma war nga suukar. ah teg naa fourneau bi mi baax na baax na. mais frère. frère kay tamit noppal ko tout le temps kay kay kay kay di nga surmoné de. waaw mais gaynde kii tamit lu ñuy def. mais tamit wàññi ko man def melal ni man. am am temps di ci loo ne. booy nam naa la mais booy démb démb gaañ nga ma booy. booy jàpp sama yaram bii di ma mëlëj mëlëjee fu ne nga jaar ma foofu mel ni wallax jaar mais affaire yi war nañ koo tëggaat nag xaw ma kañ lay nekk mais war nañ koo tëggaat bu baax mais sama gars ci lu ngeen ne booy tegal say. waaye foo nekk jànk waaw Carmen boutique gaawal tamit nag de dafa am yeneen li may dox fan la nekk exactement leer na ma ne yaa ngi ci dëkk bi di caramel di caramel Carmen boutique laa la wax Carmen boutique waaw Carmen fan la nekk exactement expliquer ma kay ma xam xoolal damaa bëgg nga bàyyi sa dof dof lu te nga ubbi sa nopp yi tey mën maa déglu boo jógee place de France di continuer mel ni kuy yëm pharmacie duy kayoon à droite moom ngay jëkk a jot liiral li nga gis ci kaw Carmen boutique bu leer nañ ah gaawal nag te li ma si gën a metti mooy dañ ma commencé di ma teg pression parce que dama leen explique woon marchandise yuy ñëw qualité beeg yooyu yëpp dama leen ko expliqué woon ba ñu jox ma seen xaalis ba ma encaissé ko te à chaque fois dañ may woo di ma sonal di ma perturbé. ah ma chérie li ma bëgg daal nga xam ko lenn la affaire business graw na trop trop trop foog nga ànd ak dal dafa garaaw dafa sensible balaa ngay woo kenn di ko jox say bagage wala nga koy dig dangay xaar ba jot soo jotee nag ba pare nga doog a woote confirmer ni bagage yi ñëw na bu ñëwee ñi mën avance avance ñi ko mënul nañu fay cash sinon da ngay diig ay problème dong la lay di indi foog nga toog jàngaat mbir mi bu baax a baax a baax man loolu laa ci gis. yéen a ngi ci jàng mi. oui am soo yaa ci jàng mi yaa ngi ci de baay. baaba. Mhm. ngi fàtte ba nga jógee temps di ñëw fii nii li la fi indi woon. da nga mais yow Baba wax na la dëgg de yow comme si que études yi mooy loolu da ngaa bokkal ak xaw ma je ne sais pas mooy loolu saa yi nag étude lañu am nañ ci jàpp. boo yéen xamal lan la yéen ñaar ñuy xaw ma ay ngaak ngeen xaw ma seer ngeen xaw ma demee nii booy bu ngeen jàng ngeen jàng seen jàng seen ak may teg man gëw ma ay jàng fii ñaata nit nga fi gis booy ñu jàng ba am ay seen ay diplôme ñu ngi ci mbedd mi di taxawaalu ñaata nit boo yéen suba ngeen comprendre saa ngeen maa soxoree nga suba bu ma demee kaaw. su ma ñëwee ba carré samay torog yu mool fii non boobu ngeen comprendre quoi mënugoo leen comprendre nag leen dem ba ci kanam te booy xamal na la bu leen ma énervé quoi bala ma nekk si jàmm ok. mais booy yow yow bu jàng na nga continuer réussir wala da ngaa am mbaayu milliardaire wala dafa am lu ma rat lu ma rëcc je lenn moom xam naa ko muy nit bu nanguwul jàng nanguwul liggéey lenn lay def muy sàcc fen. wala mu jublang naka jekk ma xam ne cuune nga ab wadd nga te ku la seen ngay dox nag mu ne xolal jàppal ma nante baangoo dara xamoo ko fii mooy Carmen boutique ah de fii boo fi duggee ba hmm. génn meloonu la neex ci yow la nga ma xolal boutique bi laa la wax xolal lépp a njaañ pour jigéen góor mat ndaw diw parfum cuuraay bépp baax baax boo koy wër ba dugg ci Carmen boutique sa aajo day daal di faju ah, fii kay mooy Carmen yaa <laughs> xolal ma tegal la ci xolal loo fi gis original la si lépp Paris la jóge xolal sa bopp yor nga say bët suñ kay saa su waatani lii la kon xolal fi may fan Carmen <laughs> booy Omar da nga neex ko yow yow isa xamul da nga neex isa xamul ne booy yéen ñaar ñi ay fekk ngeen yi ngeen gëm gëwuma yooyu noonu tekki nekkul ci seen ay loxo tamoon man maay kiy tekki man business laa gëm pas kay nii sànnil sa lii booy tekki mu ngi nekk ci loxo kii ci loxo yàlla la nekk tekki nekkul ci seen ay loxo yéen ñaar ok et pourtant sa mère lépp lu mu am mu ngi koy xañ boppam di ko def ci yow pour lan nga nekk ci condition yu baax nga jàng ngir jëriñ ko mi ngi fon yaa ngi jàng mais jàngoo frère yaa ngi font et que tey boo segee ñooy topp naan dañ laa sëriñtu dañ laa bañ or que yow mi yaa toppoon sa bànneexu bakkan saa yi tamit changé tamit de mooy loolu. gis ngeen seen mère laa yërëm quoi parce que ay ngaaka la jur ay tapet yoon du ngeen teg te booy xamal lan la sax man du ma toog fii di wax ak yéen quoi faaw ma góob parce que mënu ma wax ay féeg faaw ma góob mooy loolu. bu fàttali demee am nga examen dégg nga. wax ay examen man jaamu te bu ko fàtte. dama bëggoon a ñëw foofu Dakar def business bi parce xam nga Thiès rek fi moom business dafay yéex trop ah loolu de dëgg la waaye nag Dakar metti na de ndax imaginer nga ñëw Dakar di nga fay ndox di nga fay courant di nga fay xoma lekk gi taxaw euh, kër gi taxaw transport bi taxaw loolu yëpp budget la te nag nit foo nekk yàllaa nga fa bu ma sañoon nga toog kees loolu laa lay xal loolu daal laa lay xalaatal léegi nag xoolaatal bu baax a baax waaw waxuma loolu sax yaay fàttali sama xarit bi fi ñëwoon laa fois passé sa xarit ban magu xanaa magu ah ok ah kon moom la woon Mm-hmm. yow kii léegi dafa am yaram de. muy dëgg xanaa dañu koy melax. <laughs> voilà la nag. xam nga dafa ñëwoon ñuy waxtaan. dafa am ci projet bu ñu waxtaan man ak moom. Mm-hmm. te projet boobu. pour mu taxaw. Mm-hmm. dañoo soxla fond bu dëgër. léegi ma ne pourquoi pas ma wax la ko comme ça nga mën a wax ji bu fekkee yor na xaalis mu jox la nga ñëw bokk ci projet bi. loolu mu rafet na moom dëgg fa neex yàlla mbiru projet la moom. rafet na jekk na te it baax na macha allah waaye instant yi dafa amoon ci yenn affaire yu ma nekk ma bëggoon cee focus ba ci kanam rek. ah yow xanaa xamoo ni léegi jigéen ñi kenn toogatul ñëpp ñi ngi cherché à ce que ñu indépendante yow lan moo gën projet man bi ma la bëgg a dugal. d'accord léegi xaalis bi nan laa la koy defal dama la koy transférer comme dab wala. non am na sama benn frère bu nekk Thiès léegi dinaa def tout ba ngeen gisante comme ça nga joxal ma ko xaalis bi ndax fan yii war naa faa dem parce que am na ay kii ñu war a rek hmm. bu ko xool nag ndax kooku am na jabar. Hmm, am na borom <laughs> waaw. bu delloo rek na sa xel dal ndax man it maa ngi si ay loxo yu wóor. ma xamal la lu tuuti te bariwul gis nga xaalis kenn liggéeyatu ko dañ koy lijjanti. te gis nga ma noo mel ci kaw ba ci suuf macha allah namu ma dara ñeewu ma sama benn moroomu jigéen samay mbokk tamit lu ñu soxla suba ba ngoon xew buñ ta bu ñu mënta am sama loxo bi jógewu ci dama ciy def lu ca war koñ bi tamit loo dégg muy riir rek xamal ne maa ngi tax kon damaa xamul looy daw bay daanu fii lan moo fi ñor bañ koy màcc leerama komp nga wala waa d'accord dégg naa bu baax li nga wax waaye tamit ci li ngay focus noonu doo ma ci boole. ndeyra ma loolu moom bu ma sañoon sax nga ban cee dugg ndax instant dañoo clôturé ba pare ñaari personne kese la woon bu du woon loolu ma dugal la ci. ah bés ba ci man mii sax. waaw wuy ma kaalaala la indil affaire bu neex bàyyi lool loolu lan la. mbaxalu góor jigéen bi ma nar def ci kër gi. Hmm. na ko ñëpp yëg. dama fas yéene def affiche koñ ba koñ koo xam ne ngir yàlla wol ma ko. tey rek fii wàcc konteel ci man <laughs> dara du doy. ba xalub góor jigéen laal tegal. bu saf <laughs> saf. konteel ci man. kontaan romb naa kontaan. <laughs> xam nga lu des nag. Mhm. nga jëndal ma rek ci yu baax baax yi nag ñu dem. waa xaradam bi ñëwoon ñu bagage yi. Ah. Mhm. Mhm. maa dee ñëw. ça va mes chéris. ça va bien. ça va yéen a ngi si jàmm. ça va installé ngeen bu baax. Mm-hmm, ça va waay. alhamdulilah yéen a ngi ci carte d' identité. wax leen suñu